salaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla muy bëgg ñépp nangu yoonu njub yu mu tëral te mucc ba faaw ci mbugalu bàkkaar sunu mbégte rëy na ci li nu leen mën a dégtalaat seen émission yoonu njub ci njàng mi weesu nu ngi toll woon ci juróom ñeenteelu ndigal li mu jëmoon ci mbirum seedeel sa moroom lu dul dëgg gisoon nanu ne seede lu dul dëgg ki koy def soxlawul sax dara di xew mën naa xalaat mbir sos ko ngir waxal moroomam lu dul dëgg ngir rek lor ko loolu nag gisoon nanu ne ciy fen la bokk te fen moom way defar mbokk ak weneen a ca yam ci bëti yàlla fenn la rek te dees na àtte a koy def mu dëppook ni ko yonent yàlla suleymaan binde bi mu naan kiy seede lu dul dëgg deesu ko ñàkk daan te moom kiy wax ay fen dina sànku kon sunu ne bëgg nanu yàlla aji dëgg ji loolu dafa war a feeñ ci nun maanaam dootunu fenal sunu moroom dootunu ko wor dootunu ko jëw mbaa di yàq deram waaye danu koy baal fexe ba lépp lu nu koy waxal mu nekk ngëneel ci moom te lépp ëmb ci biir dëgg gi yàlla bëgg léegi nag nanu jëm kanam ci fukki ndigal yi sunu njàngum tey mu ngi jëm ci fukkeelu ndigal li fii la ñaareelu pàcc bi jëm ci diggante nit ak moroomu nitam jeexe pàcc bu jëkk bi bu ngeen koy fàttaliku moo ëmboon ndigal yi jëm ci diggante yàlla ak nit ñi te pàcc bu mujj bi nu war a jeexal tey moo ëmb ndigal yi jëm ci diggante nit ak moroomu nitam noonu ci fukkeelu ndigal li yàlla da ciy wax naan bul xemem sa kër moroom bul xemem jabaram walla jaamam bu góor mbaa bu jigéen nagam walla mbaamam mbaa dara lu mu moom laaj bi tàbbi ci sunuy xel bu nu déggee aaya bi moo di lan moo di xemem xemem mënee su ko gis ndaxte ci biir xol lay nekk wante yàlla moom gis na ko te xemem dina feeñ ci kanamu nit ndaxte day jur jëf yu ñaaw mel ni boom càcc ak njaaloo xemem moo di gis yëfi jàmbur bëgg ko di ca wut a jot loolu moo juróon baakaaru yonent yàlla daawuda ak batseba jabaru urija noonu ndigal lii dafa nuy won bu leer ne yàlla xam na bu baax ni xolu nit dëngate te soxor ci xol la xemem ak bëgg-bëgg yu bon di bawoo moo tax li ndigal lii di tekki mooy danu war a bëgg yàlla te ragal ko ba du nu wuta jot ci ndonal jàmbur wala këram ci njublaŋ wala sax ci luy sama ndaay yoon fekk du yoon nit lees mën a nax waaye du yàlla kon sunu ngëm dafa nu war a may nu sàmmale nit ki alalam ba mu ñoŋ waaye sunuy xol yu dëng a tax nuy xemem jabaru jàmbur di teg sunuy bët ci li mu am maanaam këram walla jeneen alal ju mu mën a doon su fekkee sax nit ñaa ngi koy sofental fa kanam yàlla xemem bàkkaar la yàlla dafa bëgg nit doylu mu dëppoo ak li mu wax ci mbind mi ne indaalewuñu fi dara te du duñu yóbbaale dara bu ñuy dem bu ñépp xamoon loolu te gëm ko di ko jëfe dinañu noppalu waaye ndeysaan seytaane dafa jëfandikoo pexe mii di xemem ngir ndax doom aadama yi di leen noot kàdduk yàlla nee na seytaane mooy bàyyi fenkat yi ba sunu jonn yàlla tey jii seytaane jógal ci fenem yooyu mu ngiy jaxase àddina ak i fenem ba tax ñu bare di wéy ci waawam ni iblis xememloo woon maam aadama ak awa ba ñu teg seeni bët ci lu ñu leen aaye woon ñu bëgg ko fexe ba jël ko noonu la ko seytaane doon jéeme ak borom bi yeesu ndaxte ba seytaane yóbboo yeesu ci kaw tund wu kawe wa won ko ndami réew yi àddina yépp dafa ko ne woon lii lépp dinaa la ko may boo sukkee màggal ma booba ma ngay fexe daaneel yéesu ci xemem waaye antuwul pexey seytaane nag soppikuwul ba tey noonu lay jëfe ngir fexe daaneel cig fiir doom aadama yi moo tax kàddug yàlla dinu artu naan bu leen sopp àddina si ak li ci biiram ku sopp àddina mbëggeelu yàlla nekkul ci moom ndaxte lépp lu nekk ci àddina maanaam bëgg-bëggu yaram xemme bët ak rëyug àddina loolu du jóge ci yàlla waaye ci àddina te àddina si day wéy waaye kuy def coobarek yàlla dinga sax ba faaw kon benn ci ñetti fiir yi seytaane sopp di naxe nit ñi mooy xemme mu bët ci lay aw ngir xiir nit ki muy sàkkoo am lépp lu ay gëtam tegu bu yëfu jàmbur sax mu bëgg caa jot bu la lu ni mel dale nag li nga war a bàyyi xel moo di seytaane lu mu la jox dina la laaj lu ko ëpp fuuf du mayeg ci neen kon nanu moytu te xam ne xemmem pexe la mu seytaane di jëfandikoo ngir féewale nit ak yàlla mi ne bul xemmem sa daray moroom dara xarit yi li waral yàlla aay xemmem mooy day sabab ñaawteef yu bare yu deme ni fen càcc njaaloo boom ak ñoom seen te loolu lépp a ngi sababoo ci topp sa nafsu bëgg àddina moo waral yàlla dinu àttu nu bañ a sopp àddina ak li ci biiram bu ko defee seytaane du am fu mu noote moom ak i bëgg-bëgg yu bon yi muy fexee sol ci sunu xol ndaxte kàddug yàlla kat dafa ne bu bëgg-bëgg ëmbee baakaar lay wasin te bu baakaar màggee jur dee ba bëgg-bëggu aadama ëmbee lan la wasinoon bàkkaar la wasinoon te bàkkaar ba daldi jur dee yàlla aji sell ji nag moom dina àtte doom aadama yépp ak bépp bàkkaar ni mu àtte woon aadama ba mu ko naan gannaaw lekk nga ci garab gi ma la tere woon dinaa rëbb suuf si ndax yow coono ak metit ngay dëkke ci àddina ci saw ñaq ngay jële sa dund bés bu nekk ba keroog ngay dee ndax pënd nga te dinga dellu nekkaat pënd cëy bàkkaar naqar ak dee rekk lay jur ndax teppe yu bàkkaara di dee kon yow mi xemam jiital ba tax nga dëkk ci bàkkaar na la wóor ne yàlla du wax di wàcc bés àtteb yàlla dina wàcc ci sa kaw soo wëlbatikuwul ci moom te nga nangu ci kaw ngëm yoonu mucc bi mu tëral ba aadama bàkkaaree yàlla dafa ko wuti woon ndax bëgg mu tuub bàkkaaram yow itam yàlla ubbil na la buntu mucc ba tax mbind mi ne bu leen tiit ndaxte dama leen di xamal xabaar bu baax buy indi mbég mu rëy ci nit ñépp ndaxte yiwu yàlla feeñ na te ubbil na ñépp buntu mucc naka buntu mucc bi yàlla ubbil nit ñépp mooy saraxu deretu musalkat bi yéesu jaare ko ci deewam ca bant ba ak ndekkiteem ca bàmmeel ba ngir képp ku ko gëm rëcc ba faaw ci mbugalu baakaar dëgg la benn bu nekk ci fukki ndigal yàlla yi am na solo waaye li ñu war a bàyyi xel mooy sàmm ndigal yi nag taxul kenn mucc loolu faaw mu leer jéem a sàmm fukki ndigal yi mënula tax kenn mucc ndaxte amul kenn ku leen mën a topp matal leen lépp te boo góorgóorloo sax ba sàmm leen waaye nga mës ci xëtt benn kepp ci anam bu mu mën a doon nag wàcc nga yoon wépp ni ko mbind mi waxe bi mu naan ku sàmm yoon wépp waaye nga xëtt ci lenn ndigal rek jàdd nga yoon wépp ndaxte yàlla mi ne bul njaaloo teg na ca ne bul rey nit ku njaalawul nag waaye nga rey nit jàdd nga yoon wépp kon nag lu nu war a wax ndax bàkkaar ci yoonu muusa la jóge mukk waaye xamal luy bàkkaar ndaxte suma yoon yu waxul woon bul bëgg yëfi jàmbur kon duma xam luy xemem ci lu wér kenn ci nun mënula wax ne mësumaa xemem walla bés bu nekk ma matal fukki ndigal yépp amul kenn ku ko mën a wax du kenn sax ak nu sama xam a mën a tollu bés bu nekk nga wax xool def walla sax nga xalaat loo xam ne doy na ngir xaajale kook yàlla ba faw ca safara soo mësula xemem alalu kenn it mës ngaa xërëm sàcc fen xalaat lu jaaduwul mbaa yu ni mel te nanu fàttaliku ne benn bàkkaar kese la aadama ak awa defoon ca tool ba te yàlla dàqoon na leen kon nun itam benn bàkkaar rekk ci sunu dund doy na ci yàlla ngir nu tàqale ko ba faw ak moom aji sell ji lu matul mënula ànd ak lu mat yàlla ku mat sëkk la loola tax newul woon ñoom aadama Bakar bi bu ndaw la wala bu yam la na xaar ba ñu defaat beneen bakar bu gën a rëy déedéet benn ba def ci la leen yàlla dàqe jataayam bu sell ba kewal nag du tëb doom ja di bët ni maam aadama amul ben mbindeef mu mën samu sàmm fukki ndigal yépp ba matal njubte gi yàlla bëgg waaw ana kon lan mooy njëriñu fukki ndigal yi seen njëriñ mooy dañu may won rek ne mënuma musal sama bopp rax ci dolli kima ma musel. ki ma mën a musal kooku moo di kenn képp ki matal yoonu musa wépp te jàddu ci lenn moo di yeesu kirist looloo tax mbind mi ne ci kirist la yoonu musa dëppe ba tax ku ko gëm dinga jub fa kanam yàlla kon yoonu musa wi danu ko wara jàppe rekk nib gindikat buy wone yoon wi yoon wi muy joxañ moo yéesu Kirist moom yéesu ci boppam wax na ko bi mu naan man maay yoon wi dëgg gi ak dund gi kenn du ñëw ci yàlla te jaarul ci man kon képp ku gëm na yéesu moo yoon wi yàlla dina la àtte ni ku jub te bu boobaa dina mel ni matal nga fukki ndigal yépp nanu déglu li ci mbind mi wax mu ne xam nanu nag ne lépp lu yoonu muusaa wax wax na ko ñu nekk ci yoon woowu ngir gémmiñ yépp ne miig te waa àddina sépp jaar ci àtteb yàlla ndaxte sàmm yoon wi taxul kenn jub ci kanamu yàlla solob ndigal yi daal mooy wone bàkkaar waaye léegi nag yàlla feeñal na ni nit mën a jube ci kanamam ci lu sequl ak yoonu muusaa dara waaye ba tey yoonu muusaa ak wax yonent yi seedeel nañu ko jub ci kanamu yàlla gëm yéesu Kirist rekk a koy maye te képp ku ko gëm bokk nga ci ndaxte ñépp a yem fa kanam yàlla ñépp a ba jotetuñu ndamu yàlla waaye gannaaw Kirist yéesu dee na ngir jot leen yàlla ciw yiwam mën na leen a àtte ni ñu jub ci dara wàcce na Kirist mu nekk sarax ngir yàlla baal na sunuy bàkkaar jaar ci deretam ji ñu tuur te ngëm rekk moonu ciy boole noonu yàlla firndeel na ne ku jub la donte sax dafa muñaloon ñi jiitu jamonoy kirist ba jéggal leen seeni bàkkaar kon ci jamono jiinu ne yàlla wone na bu leer ne ku jub la di àtte ni ku jub képp ku gëm yéesu te ba tey dëkk ci njubteem kon mbokki déglukat yi sàmm yoon taxul kenn mucc ci safara naka noonu it bañ a xemmeem sa alalu moroom taxul nga jub fa kanam yàlla boo bëggee jub fa kanam yàlla daal faw nga wékk sa yaakaar ci benn musalkat bi yàlla joxe noonu dinga mucc ci mbugalu safara abadan pexam seytaane mooy tàbbal la safara waaye pexam yàlla ci yow wuute na lool sax yàlla dafa joxe menn pexe mi nga mën a mucce ci safara ba noppi yàlla mën nanu àtte ni ñu jub yàlla moom def na wàllam léegi nag yaa ci des nun noo ci des yow yaa war jël sa matukaay maanaam faw nga gëm xabaaru almasi bi yéesu soo ko gëmee yàlla dina la baal ci turam may la bés bu nekk kàttanu raw ci pexey seytaane mii di xemmem kon mbokki déglukat yi fii lanu yem ak yéen tey nu ngi leen di gërëm ci déglu bi di leen fàttali ne su ngeen amee ay laaj mën ngeen nu bind ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis wala ngeen bind nu ci sunu adresse électronique maanaam yoonu njub aérobase sentu point sn yoonu njub maanaam y o o n u n j u b at sentu point na leen yàlla barkel te nag ngeen xalaat bu baax ci li mbind mu seel mi naan yàlla du àtte kenn ni ku jub ci kaw sàmm yoon waaye ci gëm yeesu kirist kon nun itam gëm nanu kirist yeesu ngir yàlla àtte nu jub ci kaw gëm kirist te du ci sàmm yoon